nous avons remarqué que des jeunes de la population ont fait un point de presse pour exprimer leurs inquiétudes par rapport à la situation qui prévaut sur la délivrance des baux sur les, déjà, euh, sur les parcelles déjà attribuées par la mairie de Djamnyadjo. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que le maire qui est indexé n'a aucune responsabilité, je dis bien, le maire Moumoudou Moulaïke n'a aucune responsabilité euh, sur la situation que vivent les populations, sur la, euh, sur la situation foncière que vivent les populations. Euh, il a fait toutes les démarches qu'il fallait et même interpellé son Excellence le Président de la République Macky sur cette situation. Donc, les auteurs de cette situation regrettable sont les agents des services du domaine, du cadastre et de l'urbanisme. Nous souhaitons rapidement qu'une situation définitive soit trouvée pour que les populations de Diamniadio retrouvent la tranquillité. ñu sommes ñuy sonnal fi ci Diamniadio ci walu fonci. Ken sonnaluñu luñu nak lu l'administration territoriale buñ né ñoñu nak dañuy tudd impôt et domaine urbanisme cadastre ñi leen yilif ndax suuf si du musa yokk ba ilaa yow mi din waaye nit ñi dañuy yokk te ñi fa dëkk bu ñuy yokk dañoo war a am fu ñu dëkk loolee nag ñu am lu ñu gis loo xam ne lii ñun dañoo tiit dox ci wax ci ba président dégguñu mu ñëw fii li ñu gis ñu tiit mooy lan dañuy jël foofu benn nit ñu yëkkati dix hectares onze hectare cinq hectares di ko jox muy lotissé di jaay benn preuve baa ngi nii kii Aliou Badiane la onze hectares lañ lañ ko jox fii te population bi lañu joxoon ñu daal di ko randal population bi joxuñu leen feneen ba pare moom muy jël di jaay bi ko président waxee ak léegi mot na léegi ñeenti weer yu tegu waaye gisaguñu dara li ko firndeel waaye dañoo gis leneen lu raw li nga xam ne lii moom lañ doon jooytu ba mu yëkku kon na xam ne waxoon na bu ma jógee fii danaa wax ministère de l'intérieur ministère de forces armées danaa wax gouverneur danaa wax préfet danaa wax sous préfet ak service ya ca aju suuf sa dootuma ci wax kon nag bu fekkente ne loolu mu nga ca moom ñim ko dénk ñoo loolu nekkagul ci ñoom kon nag population bi lañ dañoo bëgg nekk ci jàmm jàmm ji mooy lan nañu bàyyi suuf si bu ñuy jaay nañu bàyyi suuf si ñuy joxe par cinq hectares dix hectares vingt hectares loolu benn ngi nii bu ngeen neexee yéen ngeen ngeen xool ko